asalaamaaleykum euh, sunu mbokk téléspectateur Kër Ndanane TV yi tey nag ñu ngi ñëw fii ci Tëngéej euh, rond-point Sangalkam foire des bonnes affaires mu nekk en collaboration ak euh, Real Events ak EIW e, e, e fii fii indi lépp loo xamante ne luy luy luy jaayee ci centre commercial yi wala marché yi boo ñëwee di nga ko fi fekk lépp lu baax mu nekk yëre yëre xale yëre mag mu nekk ay taybaas yu baax jàllaaba yi ak lépp loo xamante ne ñu ngi koy jaay si lu baax rek mu jëm si karité yaa ngi fi gowe yaa ngi fi li nga xamante ne mooy parfum yu neex yi yëpp mu ngi fii nii ku ñëw rek loo bëgg di nga ko fi fekk incha allahu rabbi ñu koy amal nag du 4 au 24 avril incha allahu rabbi ma ànd nag euh, dugg ci biir xool ki nga xamante ne mooy sama naataangoo Fanta Fanta fan nga toll. waaw Yacine man de jiitu naa la. asalaamaaleykum amis chers téléspectateurs de Ndanane TV maa ngi fii si seen foire bi am sangal Sangalkam comme ni ko Yacine waxee maa ngi fi devant le gérant ñu koy wax monsieur Badara fal maa ngi nii damay koy poser quelques question rek merci beaucoup. waaleykum. Euh, maaleykum salaam soxna si. Euh, maa ngi lay nuyu di la ziar di la dalal jàmm ci suñu chaîne de l'élégance monsieur fal maa la koy daloo di la gërëm di la sant. alhamdulilah. Euh, waaw monsieur Fall dama ne woon euh, naa la laaj seen foire bi depuis kañ la démarré. waaw dañuy wax alhamdulilah rabbil alamin d' abord ndax euh, foire bi avant muy démarré am na lu ko jiitu li ko jiitu mooy. waaw sama mbokk sama xarit soomu sama doomu ndey bu ñoo wax Ibrahima Wade. Mhm. moo initié foire bi teg sama loxo mais ci biir loolu moom ci boppam dama koy remercier avant tout ndax dafa def liggéey bu am solo avant lii di am ndax. préfet bi nekk fii ak mair maire nekk fii ak euh, commandant gendarmerie bi dañ leen bindoon ay lettres pour wax leen dañu bëgg organiser foire fii ci Sangalkam macha allah ñu yombalal ñu ko trop trop sax ba mu ci benn problème waaw foofu nag laay commencé en attendant ma xaar leen question mais daal jàpp ne daal au niveau de la gendarmerie préfecture ak euh, maire yi macha allah mention spéciale. loolu alhamdulilah loolu dalal na xel ce qui veut dire que bi def nañ euh, seen loxo ci biir. waaw def nañ seen loxo ci biir bu baax a baax a baax moo waral li am tey. waaw ah, loolu neex naa dégg seen foire bi kañ la démarré. waaw foire bi ñu ngi ko bi woon depuis le euh, avril. incha allah mu war a jeex le 24 avril incha allah. le 24 avril lay jeex. incha allah. Ah, kon sa qui fait que ni foire bi day jëm ba après Korité. waaw day dem ba après Korité parce que 20 jours lay durer. macha allah mën naa xam euh, ñaata exposant moo am ci foire bi. waaw fi mu nekk nii daal nombre exposant yi ñu am boo koy euh, xayma war na nekk ci 36 euh, exposant normalement su ma juumu 36. waaw baax na ma kon amoo leen ci benn problème côté sécurité et tout ça. amuñu benn problème parce que sécurité bi mi ngi veillé ci exposant yi exposant yi tamit ñu ngi fi macha allah te xam nga soxna dafa am lu xew gis nga exposant yi nekk fii yëpp dañ leen war a gërëm. sant leen ndaxte exposition yombul ñii ñu ngi jóge cees ñii ñu ngi jóge Pout ñii ñu ngi jóge Mbour bàyyi seen soxla bàyyi seen lépp ñëw nekk ak ñun fii kon ñoom booy xool ñun ñoom amu ñun amuñu seen pay dañu di gërëm di leen sant ci déplacement bi ñu def ñëw fekk suñu fii pour ñu jublu ci mbirum exposition bi. macha allah euh, mën naa xam si foire bi fii exactement lan waaw macha allah foire moom exposition bi moom neex na tubaab li ñu fi li ñu fi exposé bari na trop ndax booy xool lépp a ngi fi am na dàll am na yére am na effet toile pour jigéen ñi am na ay lekk ay foñoo ngi fi saaboo ngi fi ay parfum ngi fi ay dàll ngi fi fii daal ay jaaro pour xale yi ngi fi ay chaussures pour xale yi fii daal lépp qualité lépp loo yaakaar ni am na ci fo lépp loo yaakaar rek xamal mu ngi ci foire bi fi dara manque fi macha allah. Ah, macha loolu neex na maanaam kon maanaam jarul nit di jéggaani fenn lépp lu bëgg rek am na fi. fi mu nekk nii ku jéggaani rek daf nga erreur ndax ku nar a jóge Sangalkam ak entourage Sangalkam ah. ay ay Mbambilor ah. ay ay Gorom ay Naflaay mhm. ku ku jóge fii dem Tëngéej rek mhm. perte nga sa xaalis ndax lépp lay wuti tam marché Tëngéej ngi fii ci foire bi dara maa fi macha allah ba pare nag yomb boole ci. yomb na am na ay bari na ay xéewal. loolu loolu neex naa dégg kon nag nit ñi nañuy gën a ñëw foire bi mën naa xam ndax exactement yéen a ngi ciy gis seen bopp. waaw ñu ngi sant yàlla parce que foog ñu xaar ba ba ba ci njëxtal ba mhm. ñu door a mën a xam mhm. li ñu liggéey fu mu fu mu toll mais ñu ngi ci am yaakaar di yàlla suñu borom mu defal ñu ay xéewal ba ñëpp gis seen bopp incha allah alhamdulilah ah yal na ci yàlla def xéewal ba ñu yéen ñëpp ngeen gis seen bopp incha allah rabbi waaw nga may ma gërëm tuuti nag parce que am yoo xam ne mënu ma leen a bañ a gërëm mhm. yow mi nga xam yaa ñëw di poser question. Mhm. ak seen tele bi. Mhm. ñoo wax ko kër. Euh, Ndanane TV. kër Ndanane TV. télé bi yàlla na yàlla na jëm kanam. Ah, télé bi yàlla na fi yàlla def jàmm. yàlla na fi yàlla def ay xéewal. képp ko fay liggéey rek. Mhm. ñi ci kaw ba ci suuf. yàlla na yàlla dafa leen jàmm may leen wér. ci weeru weeru koor bi lépp lu leen bëgg seen télé boobu daal yàlla leen ko yàlla defal. léegi nag dafa am sanu ay collaborateurs yoo xam ne maa ñoom ñoo nekk. ñooñu mënuma dem te duma leen gërëm ku ci mel ni Fatou Gofio moom mooy borom stand bi ndeysaan waaw euh, Ibrahima Wade moom mention spéciale parce que lépp moom la da ko jël takk sama loo xam ne lépp moom la mention spéciale Ibrahima Wade ak suñu beneen collaborateur bu ñuy wax Moustapha Mbaye ñu ñëpp ñoo bokk liggéey bi macha allah mais daal ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan yàlla daal xéewal am ci foire bi ñëpp jariñu ñëpp gis jërëjëf monsieur Fall dañ lay sant di la gërëm lu waaw bu ko defee Yacine xaar ma delloo la antenne bi xool yow sa côté foofu lan nga fa taataan ci ay question merci beaucoup Fanta maa ngi nii di dugg maa ngi nii di di di ñëw di fekk si ñi nga xamante ne ñoom ñoo def ñoom ñoo def exposition bi fii may xool jaaykat yi nag yu baax yi ñu fi am asalaamaaleykum euh, ça va sëñ bi noo def dégg naa ñu ne yow yaay Njaay Teraanga Njaay xéewal ah. ah, waa xéewal ak teraanga benn la ñu ngi lay nuyu ah, dañu bëggoon xam fii yan nga fi am si yi jaay lan ak lan comme liñ fi liñ fi gis ni mooy place bi Njaay xéewal ah ñëwoon fii sàngal kam bi mm. indi leen ay waajtaayu événement Korité bi bu dee ay xeeti maquillage moom indi nañu fi maquillage yu yu garaaw yu day waar ay poudre yu rafet ay poudre teint noir poudre teint marron ay fond de teint mag fond de teint L'Oréal Mélanie bala ko paal marque façon maquillage boo bëgg daal fii boo ñëwee palaasu Ndiaye xewal incha allah am nañ ko waaw. de boo ko déggee mooy ku ñëw di fi am di nga fi am te doo te doo sonn euh, mbaa njaay bi prix yi xewale na fii prix moom wax dëgg yàlla wax dëgg xéewal na lool macha allah fii moom boo ñëwee moom loo ñëw loo indi daal ñu incha allah ñu jaay la moom waaw loo yi poudre yi ba 1000 francs 1500 2000 3000 5000 6000 ça dépend rek marque ndax dafa am ay marque yu ay marque L'Oréal ay marque MAC ay marque Mélanie prix yi nag dañuy xaw a bokkul quoi ndax dafa am ay am nañuy poudre yu am nañu poudre yu tamit yu xaw a kii tuuti boo ñëwee daal loo indi daal incha allah ñu jaay la waaw ah, prix yi moom xéwale na lool macha allah. léegi mën nga maa won bi commencé téeméer ba bi jëm ci kaw. acca bisimilah ñu xool. am na bi poudre la mooy façon fer. poudre bu rafet la façon fer. bi ba cherul. francs rek lay jar. Hmm, deux deux lay doon gis nga am na poudre bu mag moom tamit poudre bu rafet la 1000 francs lay jar day am deux poudre. mag bi moo nekk nii waaw am na am na yi tamit xale yu jigéen nañ koy faral di soxla ak événement bi nii moom lañu ñu faar glitter faar populaire mooy faar bi nga xam ne day tàkk di briller waaw foo toll ñu gis la waaw hmm, mooy faar glitter quoi am nañ fi lamit loo xam ne lii fixateur la ak ensemble la quoi fixateur la ak bâche maquillage euh, euh, waaw pour maanaam mu defaree mu bañ a ñaq quoi bañ faare ko defee maquillage am du ñàkk en même temps tamit du faare fixateur la ak bâche non seerul moom 2500 lañ koy lañ koy jaayee bu dee suñ plage yi nag lu mel ne ay Dakar Asel mi ngi koy jaayee 3000 3000 mais de bu dee foire nag boo ñëwee prix place ak prix benn foire mooy gën a xéewale kon dañuy jaayee fee 3000 bu ñu ñëwee fii lañ koy jaay wala 2000 am nañ filiston highlight yi boo defee maquillage moom la ñuy def ci farmu kii ci bakkan yi nii mooy génnee farmu bakkan bi voilà très bien tuuti bi quoi <laughs> am nañ tamit pellicule manicure yi mhm. bu dee lii kii la pour démaquillant quoi mooy raxas sa kanam ba set boo defee boo koy dindi quoi mhm. voilà boo koy dindi moo koy nettoyé ba set. sa maquillage ba pare léegi nga bëgg tëdd nelaw. yàlla yàlla nag bu fekkee da nga bëgg dem julli ji wala dara mën nga jël sa dem démaquillant effacé ko fat fat nga def sa sa say say raaka pare dem tëddi. ak ban ak ban lañ fi amaat boo ñu mën a won am nañ ay ensemble blender yi nga xam ne mooy appliqué fond de teint. mooy bii mooy poudre yi. ensemble kii quoi blender yi booy def sa fond de teint say poudre éponge yi ñu koy utiliser. léegi nga koy loxo mu taxale yooyu da ngay jël say éponge rek mu koy utiliser fond de teint yi mu utiliser Xéewal waaw merci beaucoup gis ngeen lii lañ leen indi woon si Ndiaye Xéewal affaire yi xéewale na rafet na macha allah ku si bëgg a defar rek nga ñëw léegi nag ma xool euh, fi nga xamante ne fa la sama naataangoo bi toll muy Fanta Fanta foo féete waaw Yacine man de maa ngi fii gis naa nag euh, kenn kuy jaay ay yére sëñ bi xaar ma taataan si moom ay quelques asalaamaaleykum sëñ bi. maaleykum salaam. noo def yaa ngi si jàmm. maa ngi sant alhamdulilah. waaw sëñ bi dañu ñëwoon fii si foire bi ma ne naa la laajte yëre xale yi ngay jaay macha allah rafet na. waaw waaw ginnaaw bi ñu nuyoo téléspectateurs yi yeeg ñëpp ñuy seetaan ba pare rek ñoo ñëw fii indil leen yëre xale yi gën a rafet pour euh, préparation korité bi. nag yëre yi ngay jaay am na pour ba ban waa de zéro à dix-huit la. waaw ah, macha allah kon mun naa ne korite gi kon jarul nit di jéggaani fen parce que fii moom lépp loo fi bëgg comme yére xale am na fi. waaw parce que ñun ñi euh, li ëpp liñ daan fi ñu daan exposé sax euh, HLM la HLM lañ daan jaayee chaque année mais comme ren dañ ne euh, faaru Sangalkam dañ ne dañuy ñëw essayer fii exposé bi indi fi li gën a rafet ci yére xale nouveauté yi am si marché bi yëpp ñu indi ko fii ci Sangalkam pour mu gën a yombal client yi. nga xam duñ déplacé wu di dem ay Tëngéej wala HLM wala yeneen marché yi. macha allah ba client yaa ngi ñëw rek. no ñu ngi ñëw tuuti tuuti nag mais buñ gënee ñëw mu gën a baax. ah kon nag euh, client yi ñëw leen fii moom macha allah am na am na ay euh, yére xale yu rafet macha allah waaw jërëjëf sëñ bi. waa kay merci beaucoup ñu ngi rafetlu bu baax a baax seen liggéey tamit rafet na trop macha allah. jërëjëf. salaamaaleykum sëñ bi ça va noo la. may Mbaye Babacar carax yi de yaaññi na wala bi ma yore nii ah. ma jàpp ne moo daax quoi non carax yi moom yëpp a yaaññi quoi boo si xool ma moo daax sama morom ndaxte seerul 1300 lay jaar. te na. te dëgër na macha allah tey mën a yàgg trop. looy kam si foire euh, kii bi bi Sangalkam bi. waaw Sangalkam waaw dara ñu gaaw daal ñëw na te seeru li moo des mille trois cent la. daaw nga ñëw fii nga ne. li mooy deuxième année li mooy deuxième fois quoi may mooy sa deuxième année ngay ñëw si foire bi léegi yow noo gisee foire bi. waaw waaw ñu ngi sant bu baax ñu ngi si sant bu allah. gis ngeen si yokkute bu baax. waaw mu ngi am yokkute benn benn mais nag des na quoi xam naa moo la xam naa si bi événement bi doon jublu sa xëy na dina tene quoi incha allah. ah li ngeen toll ci fête bi nit ñi ñëwaguñu. waaw ñëwaguñu ngi ñëw ndànk-ndànk. léegi lan ngay wax ñi dëkk waa Sangalkam waaw ñu gaaw ñëw rek ndaxte fu mu toll nii moom instant yi mooy loolu bagage yi moom mu ngi nii moom ndaxte ñoom la quoi pour waa Sangalkam la seen yaram tàng na. waaw instant yii moom moo lool waaw bagages yi ay carton yëpp ay daal la. te ñoom nga yéen ko yéen. waaw kese ñoom waa Sangalkam ñëw fii gis nga ñi ngi woo waa Sangalkam ñi ngi woo waa Tëngéej ñi ngi woo fépp képp koo xamante ne mi ngi jege si alentour yi. waaw ñi ngi leen di ñi ngi leen di woo ci foire bi gis ngeen carax yi macha allah nekk na carax yoo xamante ne yomb na te dëgër na. macha allah léegi nag euh, ñi ngi leen di woo yéen waa Sangalkam ngeen ñëw fekk si li nga xam ne moom mooy foire bi nekk fii ci rond point Sangalkam euh, place euh, Malick Ba merci. waaw Yacine maa ngi fi jàkkaarloog Fallou Fallou na nga def. waaw sant yàlla bu baax. yaa ngi ci jàmm. maa ngi si jàmm bu baax a baax a baax. waaw Fallou mën naa xam foire bi lan ngeen fiy jaay. waaw foire bi moom ay bagage bu ne am na fi moom fii moom waa Sangalkam suñu diggee rek kontaan moom ndax na fi ay boyfriend am na ay bu yére góor am na fi yére xale bu ndaw cent franc ba cent franc ba mille franc soo ko fi indee am doog li nga yóbbu sa kër su neexee suñu borom. waaw ah, macha allah seen article yi cherul de da ngeen di jaay góor ak jigéen wala. waaw dañuy jaay góor ak jigéen. waaw mbax mën naa xam ndax yéen a ngi ciy gis seen bopp depuis foire ba mu commencé ba tey. waa sant yàlla nag de ndax affaire bi moom du jékki-jékki rek ni peut être euh, ndax bii mooy deuxième euh, édition bi fii moo ngi soog a amaat deuxième foire mënut a jékki-jékki rek neexagul. évité événement bi jegeegul te weer daa xaw a sori moo tax mais ñoo ngi benn bennal ndànk-ndànk moom mais clients yi xaw a yeex rek mais xam naa ne waa Sangalkam suñu jógee dañ leen kontaan trop su neexee suñu borom. yàlla baax na yàlla baax na xam naa koor gee leen jàpp rek waaw merci beaucoup. di wax euh, mbokk yi lii lañ ñëwoon tey fii ci foire euh, bi am Sangalkam di woo waa Bambilor di woo waa Noflaay di woo waa Kër Ndiaye Lo di leen wax ngeen ñëw si foir bi am fii euh, si place Malick Ba di leen wax foire bi lépp loolu fi bëgg am na fi macha allah. ñu ngi leen di sant nag di leen gërëm amis chers téléspectateurs de Kër Ndanane TV li lañ fi ñëwoon tey taataanal leen ko ci foire bi merci beaucoup ba beneen yoon incha allah jërëjëf.